kon ma di dem moo ma yéem ndax ci gaal la ci koñ bi ah. billaay moo ñu la jël moom la mu nekkoon ba tey ji bàyyiwu ko sa ndogu démb lan la ci koñ bi li nga ndogu démb ci koñ bi lan la ah mën nga de bi nga togg démb ci ndogu ko bi nga ndogu ci koñ bii dressé ko sa table bii teg ko ñëpp ndogu ba suur yal la yàlla defal jàmm ku lay xaar yal na xaar sa noonu yàlla bu mu la reetaan yal na la xale bu xale bu xale bu xale bu xam lu baax nga nag xale bu xam lu baax nga nag yal na la yàlla defal jàmm sama doom bi yaa ma bëgg maa def am nga jàmm alhamdulilah baarakaal alhamdulilah noo def man ay ca indi noo def yaa si jaam alhamdulilah baarakaal alhamdulilah sama doom ji dëkk fii ah su kay mbay moom laa doon waxal démb daa def ay ndogu jox ñépp ñu lekk yaa si jaam ba baax alhamdulilah baarakaal papa man yalwaan <laughs> sama si bu ma reetaan loolu nag yéen na bàyyi la ngeen may def nag bàyyi la ma fekk sama place nag di ma mokkee nag yéen a yaa yelwaan bilaay damay yelwaan kon ah, su ma la waxee dëgg rek papa bi ko bi commencé ba su ma la nee lekk nañ ci benn fan lekk bu baax waxuma dëgg yow mii bilaay nii nga mel ah, nekk suba naturel ah mais papa tamit yelwaan nga teex tey ni nga bëgg sa bopp nag tax nga bëgg sa bopp doo sol ay yére yu bon nekk ci mbedd yi di yalwaan kenn du la nawloo kon. da nga ay njaboot. yor naa ay njaboot moom yor naa cinq doom. amoo leen. ah amoo leen dara. amuñu dara lépp ñu naan. kon sa habillage bi sa sañ si bi da sagu dong. mais ni ñuy def du mun génn ci mbedd mi di sol yére yu bon kon kenn du la nawloo. jonguma ju mel ni yow xale bu ndaw mënoon a jaay sa bopp. ah mënoon a mënoon a nekk ci mbedd mi. xale bu góor bu doon romb nga piis ko dugal ko sa mu jox la 2000 dafa la neex nga toog gore gëm yàlla gëm sa gëm gëm gëm sa bopp gëm sa diina yàlla da lay teral ah papa loolu lépp dëgg la waaye man bokkuma si genre jigéen yooyu noonu papa te dama am ay njaboot te bëgg naa ëllëg sama njaboot am way yu baax dañ koy am mais buñ fi nekkoon ne seen yaay moo fi nekkoon di def lu bon loolu rafetul papa yow tamit doom li nga wax nii mu jógee ci sa xol bii yàlla da lay teral yàlla soxorul mhm. yàlla iñaanul te gis nga ah, yàlla xaritam rek lay musibaal ngir suba mun koo dara jaal gis nga boo nangoo musiba bi tey daraja da lay daal di fekk si ni da ngay muñ xam ne tey damaa ñàkk waaye tôt ou tard su bokkaratul yàlla mën na maa doom doomu gor da ngay doon doomu gor def yëfi gor gore ba kër ngay sàngoo suuf sa zaar gi nag nii lañu mën a mel borom xol yu rafet doom yi nga xam ne yaayam seen yaay dina leen a ñaanal doom yi nga xam ne dañoo am ñaan waajur dañoo toppatoo seen waajur sonn seen waajur yàlla nii la leen def bu la yàlla boole woon ci boppam dina teg ay natt da ngay am lu baax par la force la yal na la yàlla taraal loo yóotu yàlla na nga ko jox bul xàdd bul découragé man nag aw ma de waaye man mën naa laa dimbali tay ndax maala la tane te sama loxo jotu sama ginnaaw waaye dinaa jéem a yóotu ba sama loxo jot sama ginnaaw ma taral la man ñaari goro ma jur ma jur ñetteelam man su ma gisee ko gore ma koy bëgg. wallaay am ci ma lay jox nii. Mhm. ma ak engagé mii mhm. ñoo ko bokk. waaye moom sama doom la. Mhm. sama doom yi xol la te su ma ko nettalee sa kaa man xam naa ne dina ma jox ak ma jox la ko. billaay ñeenti junni la. am ñaari junni ndogu ci. papa li bari na de. li ma lay waxaat mooy. heure boo manqué ndogu ñëwal ma jox la ko. boo demee ba jaaxle ba sonn ba jaaxle ba sonn ñëwal ci man wax ma sa soxla mais su ma ko amul ma dugg ci sama génn ñu jox ma ma jox la ko maa la ko wax maa la ko wax ma ne ko maa la ko wax merci waay papa maa ngi dem loo bëgg yàlla na la ko yàlla defal amiin amiin kontaan naa trop amiin su ma la ne jàkk sama xel dem sama jigéen ba fanta mbuub nii la mel tee noir rafet belli gëm boppam nangoo liggéey moo xamay li mu am tay jal mboo ca jal caam jal ma ca ayra jal mu neex maa woo xale yëpp ci fànn boobu la ñuy roy ma ne ko xale yëpp fànn boobu la ñuy topp topp ñu keneen yàlla na la yàlla defal jàmm di nga am jàmm bon. li moo laa tuufoo tey tey laay toxoñoo toxoñoo toxoñoo toxoñu géréréréréréré waaw waaw na ñëpp waajal nag képp ku ñu doxal xaalis préparé te xam ne di nga naan café di nga am fee 300 ak 10. engagé démb Fallou mi ma fi bàyyi woon Fallou Dore mi ma fi bàyyi woon xam nga mu def sama place fekk ma fi benn bagage. waaw c'est normal nga bëgg a jël leen dégg sa alal kon Fallou ba man sax métti ma waaye bañ ba dee mi nga jël pour lan nga ko jël mu ñu topp ci kett bi buñ jaaree gos mu jaar droit bañ ba dee di def la ko sax def maa rëkk rëkk rëkk rëkk ba sama digg ginnaaw kenn xamul lu muy ndur heure la. yow bañ ba dee yow bañ ba yow bañ ba dee foogoo ne sama doomu rab la sama rab moo ko jur foogoo loolu. man daal moom yéen a ngi may jeex bu dee bii gerte bañ ba dee da ciy topp nañ ko bàyyi. bañ ba dee dootu si topp si kii la ko fekkee bañ ba dee dootu si ñëwati man si yow laay topp loo wax loolu laay def. xaalis bi xaalis bi tëbal tëbal nga ñëw. waaw dëkkandoo yeewu naa yeewu naa dëkkandoo jël leen yeewu naa

buñ commandé mburu yu bees yi de mburu yu bees yi ak defatul dara boo ko joxee xale yi du ñu suur nañ dem commandé ay kii ca pâtisserie ba buñ commandé ñeenti pain ñeenti keesu pain croissant jënd suñu jori yi xam nga jus yooyu ñuy jaay fukk ak juróom jus bi fukk ak juróom lay jar waaye boo ko daajee def ko ci paan paanu ndox bi yëpp day zone nga mbuusal ko xale yi xam naa gën a yee asamaan yi déedéet pour xale la pour xale la jus yooyu pour xale la man sax dama am ngant ndax damaa toog fii rek am benn ndaw bu fi ñëw jong ma ni ma dama laa soxla engrais dëkk bi métti na loolu ngay wax naan yoo xam naa toog fii rek xamoo ko santal yàlla sa table bii de am na ñoo xam bu ñu xëy di la wax li ñuy dund doo sax comprendre moo tax tiitu ma nag li ma def tiitu ma ci ndax xam naa ne yow xol bu rafet nga am yow sa baay nga nuru Amadou Aaw Aaw dem ma makaraasin sàmbaloo bi gën ngi songom xeer kenn du yow bu te Aaw nga bokkal ndey baay xale bi daal hmm. bi ñëwee mu ni ma dafa am moom set doom. waaw yu ndaw. waaw da leen a neef. man jéeg te jéeg yu jéeg yu pauvre ñoo a mën a jur seetlu nga loolu ñu am juruñ de ñu am juruñ bu baax de. léegi mu ne ma daa ñëwul fii di sàq si ndimbal engagement ko ñëw ci man di na ko ma boole ko kii Kalaara démb kër Kalaara la nekkoon jabaru Doro Gueye. fa nga ndogoo démb. voilà ndogoo nga engagé ko ma tegee ci nu café dem. déedéet. xam naa ne daf maa woon doon ma teraat pour ma lekk mais wàllum xaalis nee na ma bàyyi ba nga ànd ak njaay. nga ah. ñëw fi joxagu la. joxagu ma de. Clara Clara. waaw ka ñaar ki ñaan dafa baax. Hmm, dañ fa dem de. yow moom moo tax nag moo tax li ma def nii xam naa doo ci mer. waaw xale bu jigéen boobu. Hmm. bi ma expliqué kaam. Hmm. wax ma fi mu dëkk. néegam njaxte néegam moom néegam daa jël ay sërëm def nii mbaar ko dëkk ci amul amul amul couvrir fa dëkk ak ay doomam. man na man bañ ko tey démb amoon na ñeenti junni. mu ko wéccee ko.

yow fit bi nga am bama and ak yow nga and ak engagé ci digg bëccëg gu ndara yor yoru koor naaj bi tang jeur naaj bi tang jeur ma sango sama dara bi and ak yow ñu yor ku nekk radio dugg ci bir kër yi enquête suñu xaaliss nga ne yow amo loo koy def lu xaar ba benn preuve ñow nga dañ ko yëkkati tek ko ci loxom jaay nak jaay amo histoire mu so wona histoire ha ah. bala ma histoire yow da ngay defar sa baatu mbub ba pare sa dënd baa ngi mel ni barki khalifa malik ma xam ngeen tay nga dugalek problème xam lu mu bëgg te génn xaar ci bëgguma ñaar deggu ñu ma kay dégguñu na man dama jappon sama ñambur tok sama fenêtre bi sa bu ma xëyee traité sama ka yow nga tok sa place di jaay mosuñu am problème ya ma fekk fe xëccima xëccima xarito xëccima jubo ma and ak yow ñu dem kété ji dama né da nga may jox xaaliss bi wala joxuma xaaliss bi ñent jund la won ak wéccat ñent jund ak wéccat ak kër yi ñu duggal ñu ne ñëwaat leen fa xam la la bëgg nga gënte ñent junni nga jox mako tek ko sama loxo ma tek café xaaral amana ñent ñeenti ak 400 man xex be xulo bi bayina ko engagement jom mën naa nekk di waxateeg yow doomu aadama yi nekk li ñu gis naan ñoom ñaar bu tey ñu ànd bu subaa ñu tàkkali ko loolu dama kaa jomba def sa rajo bi nga sànni fii mooy sa sa rajo bi kii ni lay déggee nga sànni ko ndax ndax ñeenti junni te yàlla moo ne dimbali sa morom sa moromu jullit mu lekk te yaa bala léegi amoon na ñeenti junni ak quatre cent léegi man sama ñi ñaari junni moom laa jox xale bu jigéen sama deux cent mi ngi sama poche am sa ñaari junni ak sa waaye ba ñuy kenn waxante wuñu woon séddoo xam nga lan la ñu waxante nga jël somme bi yëpp teg ko sama loxo comme bokkatoo nga toog ma woo xale góoru koñ bi ñu ñëw ñu def suñu segg café engagé ngay génn famille wala génnoo xanaa yow sa xel di dem ci xullu kaka wala kaana mu rat engagé ah yaa ngi avancé nag déglu ma wax la nag ah yaa ngi yee samay rab nag engagé sëñ laaj eh waaw engagé déglu ma wax la ñaari baax ma laal bu kaw ñaari ma laal ñaari ma laal bu kaw sama dugub daa toj sama dugub daa toj ma yëg sama dugub daa toj ah gars sama waay sama tax sama tax